loolu man du ma mënuma kaa rafetlu parce que. lan nga rafetluwul c'est-à-dire que dem naan fii je suis pas en sécurité Casamance laay dellu pour ne fa en sécurité Casamance c'est tout Sénégal la rek. il l'a précisé il l'a précisé état tey tey Ousmane Sonko état su décidé woon lu muy décidé pour jëli Ousmane Sonko. dana ko dinañ ko def mais c'est pour éviter certains dégâts collatéraux. état di di doxee professionnellement pour au moins affaire bi ñu ñu def ko dans le calme. Mhm. vous savez que man Ziguinchor la def man j'en fais partie des cadres de Ziguinchor danaa ne lu ma xam Ziguinchor Ousmane Sonko xamu ko lu ma fa def. ci ay cadres Ziguinchor nga bokk ci ban anam. non man doomu Casamance la. ok doomu Ziguinchor la. fait il y a une structure Casamance bi nga xam ne. moom mooy dajale les cadres yi nga xam ne tey tey su ñu doon wootee les cadres Casamance yi jox leen ay carte ci lay bokk dina am délégation bu ñëw Sonko. mais li fa Ousmane Sonko di représenté représenté. non non c'est-à-dire que xam nga loolu ci cadre politique bi laa la wax. ci cadre politique lu mu fay représenté représenté wu ma. mën nga gagné mairie ba. ah mën nga gagné mairie ba. non waxuma waxuma la foofu dama la ne man. Eh, yaa ni lu muy représenté yow li ngay représenté foofu Ousmane Sonko représenté wu ko. non waxu non non il faut pas mu. ne. moom lu mu fa représenté man représenté wu ma ko parce que c'est lui le maire popularité bu fa. am li nga fa xam moom xam ko fa. waay. si lan nga ko wékk. dama ko wékk fu leer. lu leer xam les réalité ba pare jege population bi Ousmane Sonko xanaa léegi lay jege population jigéen sooraay. ñun dañoo jege population bi xam seen i di def nag. lu fa moom jegewul population bi waa Ziguinchor. way loolu Ziguinchor Ziguinchor c'est pas Ziguinchor du moom mooy Casamance Ziguinchor loolu ndaw la ci Casamance.